Ok, ok, Inch'Allah. on a ko vous savez mais on est beaucoup on est beaucoup plus sur LinkedIn nag at at Twitter. ok bon LinkedIn bon maa ngi siy gis euh, Nourou mais bon une information yi ngay Je yi xam naa man maa le euh, lien yi wala genre si mais bon dans tous les cas il y aura l'occasion de de Euh, déjà di nuyu Baye Madické Papi Ndoye je sais pas ndax da nga am benn question boo bëgg a poser wala loo am loo bëgg a yokk si li ñu doon wax depuis sànq. <laughs> Papi Ndoye il est timide <laughs> grand grand grand Baye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Nourou ñu ngi nuyu ku baax. Euh, di jégul nag xam naa ma du ko yéexee ma ko doo gis. amul problème so euh, di nuyu sëñ Babacar Lo Idrissa Maguette Papi ak Soxna Aw nekk suuf bu Gëmba ñu nekk suuf yëpp moom bi ñu nuyu ñu nuyu ko baax ñu ngi lay fay donc instant bi depuis sànq ñu doon wax quand même si full node yi importance yi risques yi limites yi. Euh, après je ne sais pas il y am a une question même qui ne sont pas liées à Bitcoin on va dire que y minutes de on va dire environ 15 minutes quand même 15, 20 minutes euh, bon il y également. bon pour pour pour pour am tuyau il est intéressé par le euh, développement blockchain c'est-à-dire a un temps pour consacrer ses formations formations bi fan ngeen di ko diriger que ce soit en ligne ou bien en, en présentiel. maanaam da nga bëgg former sa bop wala da nga xam kenn ku bëgg a former boppam si blockchain ak yooyu. non man mii sama bopp maa bëgg. Mhm. former wu nek euh, développeur blockchain mais ne ma pas laay diriger wu à part bon di fouiller sur YouTube bon am euh, école bu ma à Alira. non il euh, faut éviter Alira boobu noonu ils sont en France. Hein. Ajá, no, information bi peut-être si kii bi am na ko am information boo xamante ni bon Idrissa ñun man bi parfois j'organise des formation de ah boo xamante ni mën naa ne dañ lay teg sur les rails hmm? dinañ couvrir. yenn affaires yi initier la ci yenn langage de programmation yooyu wax la les fondamentaux comment programmer sur les blockchains ak bitcoin et cetera ça parfois ñu organiser ay kii mais ça dépend souvent du ñu amul benn nombre de participants bi souvent yu bëri dañ ko annuler au mais à chaque fois suñu amee dix participants dañuy def formation bi ba mu jeex tàkk mais bu en dessous bu ñu amul dix participants du mën tenir duñu mën soutenir xam nga euh, jël benn local et cetera frais yi muy laaj pour des formations, bi bam mu jeex quoi mais souvent dañuy organiser ay formations dessus ok bah man mom je suis je suis intéressé mais souvent si so so soo les bases en programmation rek so creuser en ligne tester yenn affaire. yi yu bari yow yaa koy acquériral sa bop au fait bon ñun li ñuy def rek toujours on te met sur la bonne voie au fait dañ lay jox ben base bu solide bo xam dina la permettre so creuser tout rek mm, facilement tu tu tu mën nga avancer trop ci ci sujet bi quoi mais man j'encourage tout le monde à essayer de s'auto-former parce que tu, ci la connaissance bi gën solide au fait. ouais. Okay. Effectivement, comme les grands Babacar wax, auto-formation, manam bon après il faut savoir où chercher aussi. Euh, mais si tu da nga soxla cadre et que tu es à l'aise avec l'anglais man dinaa le conseiller programme bi ma def déjà chain code donc c'est juste da ngay dem site internet euh, da ngay def learning nga remplir benn formulaire basique après ñoom dinañ la yónnee mail ñu wax la nga def deux trois tests après ñu jël la c'est un programme sur cinq semaines mais vraiment hyper hyper important léegi ñoom si seen bopp dañoo affilié ak ay développeurs africains notamment nigérians ñu créé benn aussi style chain code mais dédié à l'Afrique bu tudd kala point dev donc kala c'est Q A L A point dev donc ñoom tamit programme yooyu noonu dañuy wër ay développeurs africains de façon générale ñu former leen et c'est bon gratuit hein seen code ak Kala yëpp c'est gratuit ñu ñu former la après suñ la former la plupart du temps si si biti euh, d'habitude am na ñuy xaar développeurs yi fay génnee su fekkee ñu wut liggéey la ñu recruter leen. ok c'est gentil xam naa dina dina exploiter. Euh, incha allah merci beaucoup. est-ce que gars yi da ngeen am leneen loo leen bëgg a discuter wala. yeah man bëggoon laaj dara ko tuuti man nag nga nu may développé à niveau intermédiaire quoi Python laa def tuuti mais bu ma nee wax xool dugg naa ba si seen code bi yónnee na affaire yi euh, Scala la ma yónnee pour mooy xool mais dafa mel ni dafa part bu ñuy fay quoi pour tutoriel one on oh one ba ma ma leen suivre na ko mais je sais pas ku mel ne man dina mën retraite boobu ak selon sa volonté quoi ak temps mu am dina man euh, à partir niveau intermédiaire mu am jàng yenn affaire yoo xam ne boobu mel ne euh, euh, solidité wala leneen yeneen langage yu utilisé ko pour développement développement si si blockchain bi noonu xam question pense pour le Babacar Bon, solidity mom lu ci bari mën nga ko jangal sa bopp su fekke ni ka am nga ben ben base bi en en développement mën nga jangal sa bopp solidity. Bon, ma ko wax rek ma ni ni beginner et intermédiaire la yori ci Python Python kese. Non, so amé cette base là mën nga jangal sa sa sa bopp solidity. Bon, ce serait plus intéressant su fekkone ni que euh, xawone nga laal touti yenen yenen ki mais de toutes les façons solidité monde, du du lu difficile trop tu demee ci documentation bi facilement commencer tester tout rek hein, tu t'en sors quoi soit défé ben deux semaines bu deuguer déjà di nga am base pour bu bu bu tu concentré wu un mois pour xamante ni euh, da ngay parcourir documentation bi dem tester ay affaire bari na ay kii ay tuto yu lay yu lay web bi un petit peu de recherche di nga des tas d'exemples

waaw soo dee gis. quoi dama xam. son truc. y a juste ben benn cours initiation GitHub mais c'est intéressant hein, ce qu'il fait puisque moom c'est un bon développeur aussi côté Bob hum, c'est très intéressant ce qu'il propose donc. Euh, j'encourage tout le monde à suivre quoi son truc parce que c'est bien. il y mais dessus donc euh, voilà ma duggee si gëbëb bi y'a ci de chose xam naa dama war dafa ma dama soxla wono won au début ku may wan fu mu war jaar ko defal naa loolu il y a beaucoup de documents ci biir ak ak yëpp yi xam nga processus bi mais yegg xamna na naa si gën wala xam nga nuru xam na amu leen jot nuru am jot wala ba su jot rek wa anytime en fait je pense que mën nga bind directement Fodé parce que moom ci bopam euh en tout cas je pense hein, parce que gisoon na def na affaire bobu nonou j'imagine que, parce que tu me disais que c'est Bartla, mais nous allons contacter directement, je pense qu'il sera très ravi de jàppale sur si mais kala bi information bah xaw ma ko woon xaw ma woon ni wanam wan ak da ngay fay je savais pas. Euh, wanam wan bi def option defe naa Pour pour l'instant boo bëggee mën nga fay pour mu gën ok je savais pas mais ouais man de dama jàpp ni euh, peu importe niveau de ki dans la vie si tu veux apprendre une chose il suffit juste de la détermination et ligue parce que affaire bi peu importe le niveau par exemple il nous dit que mon il est niveau intermédiaire peu importe je pense que même ce fait qu'il la musul gis sax su affaire bi intéressé nit ki il est prêt à y consacrer on va dire entre 4 5 heures par jour pendant 5 6 semaines mais dina ci génn ah. ma lool la gëm après nak c'est. Hmm. bon di nga soxla ben base bu ndaw mais li nga wax ni c'est exactement ça en fait ça dépend ci niveau de détermination. c'est ça et loolu dama si gën am conviction bima ma genre programme yi ba gis ni en fait la plupart de gars yi ci nek wala la plupart de nit yi ngeen di gis ñuy contribuer ci bitcoin ak yoy ce sont des autodidactes affaire bu doy war ño xamni ni par exemple un des plus grands génies aujourd'hui de notre ère xam nga ki nga xam ne mooy Snowden mais gaayen boobu noonu kooku c'est un autodidacte entre guillemets tu vois donc kooku noonu te imagine c'est un génie donc euh, voilà quoi affaire bi wala lépp si bopp bi la quoi en fait juste pour confirmer li ngay wax li Vitalik Buterin à un moment donné dafa ni ñu ko jàng bi daal di dem sëgg ci bitcoin bi ci la lancé bitcoin magazine noonu. Ah commencé bind ay articles dessus donc c'est exactement ça. xëy ko Fortran a ngi dox ni ko vraiment si si nekk nag man lu may def léegi damay jag dem ba sore un mois deux mois da ëpp ma relâché xam nga donc ëllëg ma defaat ëllëg ma yëf xam nga affaire affaire quand tu reviens zéro mais defe naa je lu ma war a def quoi I don't know na euh, naa naa il faut nga assurer au moins cinq heures de temps par jour minimum. wala quatre ouais minimum je pense mais en tout cas li ñuy jéem a def. Eh, ñeneen di ko jéem a def tamit bi Sénégal mooy démocratiser xam-xam bi déjà dindi barrière langue bi le fait que anglais mooy tere ñu bëri ñu dem xool wala ñooy mooy tere ñu bëri ñu dem essayer loolu moo tax ñuy def lii di si consacrer temps bu bëri quand même parce que dañoo seetlu benn affaire que en Afrique notamment euh, Afrique anglophone Nigérian ay Ghanéens ñoom ils sont très loin da ngay dem Nigérian di nga fa fekk Nigéria di nga fa fekk ay 4 5 exchange yoo xam ne ce sont des Nigérians qui les ont fait Hum. nga dem comment ah, Afrique hein. voilà ñun ñëpp benn point commun lañ am mooy que anglais bi dafa yomb si ñoom mais ils sont pas plus xam dégourdis que nous léegi ñun lii mooy problème bi on n'a pas accès à la connaissance dans notre langue. mais aussi même soo xoolee documentation française bi bëriwul même su amee c'est pas exhaustif donc idée wu lii nii ak idée wu vidéo yi ñuy def ak idée wu ñeneen ñi ñuy def Sénégal c'est de permettre nit yi ñu am accès ci xam-xam bii nii parce que dañoo gis ni dëkk yëpp ñu ngi profiter ci mouvement bi dëkk yëpp da ngay gis ci biir ay nit di si créer ay business des business autour des portefeuilles virtuels des business autour des blockchain explorer des business autour du minage ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais ñun ba léegi bon suñ dëkk yi amuñu ci business donc avant ñuy sax def business ñun suñu bopp dañuy tasaare xam-xam bi ba pare donc lool moy objectif on va dire room bi ni quoi entre autres ak vidéo yi ñuy def jaajëf lu am na solo loolu gis naa depuis loolu yéen ngi ngi def yéen ngi dama test exactement donc gars je sais pas nak am ngeen leneen lool leen si bëgg a yokk wala benen discussion bo leen bëgg def par rapport au sujet bi yéen ngi may déggal voilà je m'excuse peut-être baat bi xawa a kii donc euh, dama fi nga fi nga fi nga wàcce léegi moom moo xawoon intéressé c'est une question boo xam ne doon na ma intéressé fan yëpp c'est-à-dire que yaa ngi wax euh, xam-xam bi nga xamante ni euh, moom le pays anglophone yi am euh, je sais qu'actuellement bon am na ay ay kii yu ma gis yoo xam ñu ne Nigéria aujourd'hui je pense c'est l'un des premiers pays utilisateurs de crypto-monnaie en dans le monde sax je pense hein. ils ont même dit dans le monde même pas en Afrique donc euh, man je me suis toujours posé la question yan cas d'usage le Nigérian il dit « am sur ça c'est-à-dire que man je vois pas aujourd'hui man gisuma tey ay cas d'usage de de crypto-monnaie yo xam mën nañ ko def grande masse quoi parce que c'est vrai mën nga def ay transfert d'argent nga def transfert d'argent transfert de monnaie plutôt mais il faut que voilà que que qui transfert ak ki jot que les deux soient crypto friendly manam ñoñu euh, xam lan moy crypto-monnaie donc mën ci adhérer je sais que man ak yow la bitcoin mais c'est pas le cas de tout le monde euh, donc man je me pose la question nigérians yi par exemple yan cas d'usage la aujourd'hui autour de du bitcoin. ok cas d'usage bëri bi inflation monnaie tu c'est adossé au pétrole or cours pétrole c'est très volatile da ngay jékki donc instant boobu noonu seen monnaie day perdre valeur donc ki nga xam ne dafay bëgga a day jékki-jékki gis prix yëpp yokk Nigérians yi bi ñu gisee loolu noonu ils ont cherché des alternatives après ñu découvrir Bitcoin beneen bi loolu benn waayu programme bi moo mujj jàll nii moom moo ko moom moo ko wax mu ne en fait da nga mu ne moon benn instant ba nit ki mën na nekk gana bëgg a yónnee xaalis kenn Nigéria xaalis boobu dugg Nigéria genre dafa amoon benn genre bloc ben genre bloc entre ñaari dëkk yi quoi après je connais pas vraiment les détails les imagine ñu ne le CEDI bi ni du dugg ou wala Naira bi du nigeria pour dem CEDI alors que xam nañ ni ñaari dëkk yooyu noonu day melni Sénégal ak Guinée tu as beaucoup de guinée au Sénégal tu as beaucoup de Sénégalais en Guinée nooy def ba da ngay wut alternative te bitcoin alternative boobu noonu la tu vois trois <laughs> Nigeria côté sécurité c'est pas vraiment ça donc nit yu bëri dañ doon xool tamit ay alternative pour mën a garder seeni alal pas ci banques yi banque yi nga xam ni gars yi wuñ leen mais aussi pas si mobile money yeeg yooyu ak yooyu donc bitcoin dafa ñëw nekk benn alternative encore une fois bitcoin c'est une alternative nit ki mën na jël xaalisam def ko si or nit ki mën na jël xaalisam pour garder ko def jënd kër wala leneen ak leneen lii c'est juste une alternative de plus nit ki mën nañoo ibbi benn e-commerce di accepter des paiements par carte bancaire par chèque wala par virement mais aussi par bitcoin alternative donc cas d'usage yooyu non man la am ci ci ci nigeria quoi loolu motax lo fa gis exchange yu bari fa instant bi ni ben exchange yi nga xamni africain yu bari mom lañu utiliser Paxful même su fekkee du ben Nigérian momo créer mais faut le soqee ko tu vois après am nga premier mon entre guillemets portefeuille virtuel bi nga xamni day promouvoir Lightning Network foofu le jógee bitnote de Bernard Para tu vois am nga un des plus jeunes contributeurs développeurs Bitcoin euh, bu jugee foofu tamit Nour El Khalil donc ñoo ñëpp lutax ñuy def lool c'est parce que la demande est là da nga dem ba instant en fait c'est pas c'est le deuxième pays derrière les États-Unis où il y a le plus de transactions Bitcoin lolu entreprise bi ñu woyé Chainalysis nous ñoo ko génnee quoi comme information donc raison yëpp ñoo tax un pour se protéger contre l'inflation 2 pour mën di yónnee di génnee xaalis bi ci dëkk bi mais aussi di dugal xaalis ci dëkk bi trois pour mën a garder seen xaalis à l'abri des banques ak yeneen ak yeneen quoi après je sais pas ndax gars yi ils ont d'autres informations wala yeneen cas usage mais je sais pas si déjà ça répond à ta question. si si ça répond ça répond à ma question euh, parce que euh, question boobu posé naa ko ñu bëri mais amuñu moo ci woon réponse bi nga ma ci jox nii euh, donc euh, <laughs> jërëjëf merci. ñoo ko bokk. su gaay yi amul luñ si yokk am na ku ñuy wax Abdou Dieng est ce que Abdou Dieng ñu ngi lay nuyu déjà est ce que da nga am question boo bëgg poser wala loo si bëgg a yokk si lu ñuy wax depuis sànq bon dafa mel ni Abdou dafa yéeg mais dafa xaw a timide donc gaay nekk si suuf euh, maa ngi jéem def benn tour jëm leen yéegee su fekkee da ngeen am benn question wala loo leen bëgg a yokk si li ñuy wax depuis sànq avant ñuy quand même tëj room bi parce que ce serait pas intéressant ñu toog fii rek di xoolante quoi am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi suuf chaque jour ñu ngi fii mais ils refusent de parler du ma tudd ay ñoom maam bi ay ñoom awaak yooyu ak yooyu <laughs> Bachir ñu ngi leen nuyu. borom xam-xam yooyu di laa xatu. Bachir ñu ngi leen nuyu est-ce que yaa ñuy dégg non Marwan. ah. problème Bachir am problème connexion. ok. Bah, du coup, gars man instant yi je sais pas trop dans lañ mën a waxati. ah. Euh, attends maa ngi jégalu moi Nourou. je sais pas dans dynastie xej mais bon yaa ngi doon wax sank côté Lightning Network tant yi aussi c'est c'est l'actualité pour tourner du coup notamment avec ak euh, Salvador bi euh, bo bo si mënoon wax euh, accessibilité bi et tout ça, quoi. Au moins, nous avons un petit plus d'informations si possible. Ok. Euh, Lightning. Lightning, nous avons le best depuis 2017. Franchement, en termes de techno, le best euh, on va dire que année Bini, je sais pas comment on lance affaire, mais il y a eu une grosse campagne marketing autour du Lightning Network. Mais aussi, il y a le fait que, a eu une solution bi strike gars yi dañ ko parce que c'est des paiements instantanés et que Twitter si boppam temps y passé le autoriser pas le autoriser mais le créer une fonctionnalité pour xam ne nit yi mën nañ joxante ay pourboire entre guillemets via le Lightning Network je sais pas na gis ngeen ko euh, donc lol moo tax peut-être buzz bi nek ci Lightning mais Lightning lan la c'est une comment. wala su ouais man Twitter non non non en fait euh, euh, soo demee si profil nit ki mais d'habitude iPhone yi ñoom ñoo koy man dama waaye da man gisuma ko woon à la base mais après ma jël sama téléphone soxna ma gis ko si en fait li ñuy woowee tips quoi c'est comme nga dem restaurant rek après nga joxe pour pourboire léegi yes, exactly tips, donc avant tips yi mënoon nga nekk benn genre paiement paypal wala yeneen mais léegi gars yi dañoo autorisé dañoo dañoo intégré paiement lightning yi donc lightning c'est juste yeah. donc lightning c'est juste benn couche supérieure à bitcoin mais pour expliquer ko simplement sans entrer dans trop de détails techniques day mel ni grand Idriss maag yow tàmm nañ di commercer imaginons yow grossiste nga man détaillant la chaque fois man xam naa ne damay ñëw di jënd si yow tu vois parfois tamit il arrive yow nga jënd dara si man xam nga léegi au que ñuy def chaque fois ay transaction bitcoin directement si blockchain entre guillemets wu bitcoin bi dañuy créer benn contrat maag yow suñu évaluer que maag yow en fait au final suñuy transaction sont autour de dix bitcoin man damay indi cinq bitcoin yow nga indi cinq bitcoin ñu boole ko ñu on va dire ñu naj ko ñu euh, ñu bloqué ko voilà ñu bloqué ko pendant un certain temps pendant ñu koy bloqué si le niveau de lañ koy bloqué léegi maa yow ñu bien le livre de compte c'est un peu comme comptabilité comme nga def rapprochement bancaire donc suñu ibé livre de compte bobu à chaque fois soo yone au lieu mu nekk ben transaction day nekk juste bien écriture après il y a des notions de clé il y a des bon mais de monsieur Dougou mais mais jëlal juste que day nekk écriture donc tay le 13 octobre grand Idrissa yónnee ma un bitcoin dañ koy bind suba ma yónnee le deux bitcoin ñu bind ko gannaaw suba man ma yónnee wal le deux bitcoin ñu bind ko donc pour le moment yow ben bitcoin nga ma yónnee man ma yónnee la quatre donc au bout de deux jours yoy non ñu ne xamala la instant on arrête notre collaboration léegi on fait les comptes buñu défé compte yoy non ben calcul lay am ñu xol si di bitcoin yoy non au final léegi ku nekk ñaata la yor Ouais, système de compensation comme chambre de compensation exactement voilà donc exactement c'est ça pour bañ dugg ci détails techniques tant que ñu ngi def ay transactions via le Lightning Network do ko gis ci blockchain bitcoin da ngay gis juste transaction de base bi maintenant ce bi ñu waxé ni mak yow maintenant c'est fini instant boobu lañuy def benn dernière transaction pour jox ku lan la donc grosso modo loolu moo bi évaluer capacité wu loolu ils ont dit qu'avec le Lightning Network il peut y avoir jusqu'à un million de transactions par seconde soo koy comparé, carte bancaire Visa par exemple c'est 50 mille transactions par seconde instant yi ni le réseau Bitcoin donc niveau 1. bi c'est environ entre 3 et 4 transactions par seconde donc nous moo tax lightning et ça permet aussi de dépenser des petites sommes madame il il serait pas pertinent de di jënd café à 50 centimes wala fukki drum avec bitcoin déjà frais yi a peut-être pour nar a alors que su que gars yi dañoo ubbi nous ñuy ay channel entre nous nous avons ko lightning network Nous nañoo fay même dërëm sax su leen neexee quoi donc euh, voilà les mooy lightning quoi su ma ko mënee expliquer on va dire simplement. je sais pas na grand. ok merci merci Nourou bon Lightning euh, man je pense que buzz bi moo fi nekk li ma si jot a gis y a encore beaucoup de choses à faire déjà côté technique bi on parle de niveau 2 mais ci biir niveau 2 il y a cinq autres niveaux yoo xam ne ñoom ñooy garantir loolu lépp Lightning aussi dafa am plein de problèmes de sécurité gars yu bëri au tout début entre 2018 et 2019 de dañoo perdre ci biir parce que c'est pas encore très clair trois promesse bi maanaam promesse que mën nga bloquer say bitcoin nga def ay transactions jusqu'à un million de transactions par seconde ak pour le moment balaa loolu di mën a am sax il faut gars yi commencer utiliser bitcoin ci boppam balaa ngay wax niveau 2 lightning et instant bi nii solution yëpp ñi gis ñukay utiliser comme nous ma wax strike waaye euh, ellen strike wala bitnode ak yenen ak yeneen dañ lay laaj aussi nga joxe say pièces d'identité donc li c'est vraiment à l'encontre de la philosophie bitcoin encore une fois salam assalam euh, salaamaaleykum bon man nañ euh nous def nu man dama question par rapport à exchange euh, France ñëwoon naa fan yii di laajte quoi man question bi ma amoon surtout mooy bi may bi may soog a démarrer en fait ba léegi sax damay soog a démarrer dama amoon problème pour acquérir ay ay ay coin quoi quel que soit quel que soit crypto-monnaie bi donc après dañ ma recommander ay ay solutions notamment EasyChange euh, mais déjà seen procédure procédure KYC bi dafa xaw a bizarre parce que da ngay remplir après gars yi deux deux jours après ñu ñëw ne la genre jàllul. Euh, beneen waay après quelque quelqu'un aussi ma ma recommandé mooy exchange peer to peer yi comme ay Paxful affaire yooyu noonu mais dama doon am problème aussi pour déjà trouver ay prix yu yu yu yu yu baax entre guillemets par exemple yoo xam ne day day xaw a corroboré ak marché parce que j'ai l'impression foofu ku mu neex day dugal prix pour orange parce que dama doon am problème aussi gis ñoo xam ne dañuy jaay Orange Money quoi donc après ci laa commencé woon xool ban monnaie laa mën a def pour mën a comme problème loolu yaakaar naa problème la en tout cas man dama ko am mën a jënd ay crypto cryptomonnaie français et fa quoi ma am orange money wala wave wala kii comme li EasyChange di def quoi en quelque sorte je pense ndax xam ngeen EasyChange point com donc xam na ko ouais donc bi ma bi ma commencé loolu après ma def ay quelques recherches ma xaw a trouver ay solutions yoo xam ne parce que en fait concrètement li ma découvrir mooy boo bëggee def loolu quelque soit cryptomonnaie bi il faut yow nga héberger benn nœud quoi comme ci ngay mën a envoyer requête ci ci ci ci bi ledger mais que am a ay solution yoo xam koy bâtir au dessus du ledger quoi parce que amna une solution bu tudd Tatum point startup je pense qu'il euh, startup sans euh, sud-américaine là mais récemment rek ñi ngi won ci dernier round qui bi tech crunch je pense ils ont ils ont été deuxième quelque chose comme ça ils il paraît aussi li wax né Mastercard aussi mi aussi mi ngi defar benn solution in house boo xam ne moom lay utiliser mais en clair solution bi da permettre via une API REST nga nga mën a nga mën nga mën par exemple créer ay adresse euh, nga mën recevoir ay bitcoin ci ci adresse yooyu nga mën aussi par exemple interroger transaction par exemple pour recevoir une un transfert mën nga mën nga gis transaction yi donc en quelque sorte boo boo boo ko yoree mën nga def mën nga defar mën nga defar exchange quoi boo xam au moins nit ñi mën nañu jënd ak jaay bon maa ngi testé côté ci côté test net euh, apparemment mi ngi dox maa ngi envoyé ay kii ay transaction maa ngi koy gis mais question bi ma amoon man surtout mooy nan la exchange di defee xaalis quoi euh, c'est surtout ça ma question dans le sens où par exemple yow sooy sooy sooy sooy sooy par exemple supposons que waa ji ñëw jox la ay bitcoin yow nga jox franc CFA ensuite deux secondes après parce que inflation bi dafa bari ci ci ci crypto monnaie cours bi daan donc par yow moom cent pour valeur bu cent mille la ñu joxoon mais léegi jaratul cent mille par deux mille francs lay jar quoi c'est-à-dire nan nan nan nan la exchange yi di di mitiger problème boobu noonu quoi premièrement deuxièmement aussi partie KYC bi aussi dama lire un peu ni que par exemple euh, utilisateurs yi adhéré wuñu ci idée parce que day xaw a day xaw a day xaw a day xaw a aller à l'encontre de l'idée que bi bitcoin dafa xaw am notion enfin crypto monnaie dafa am notion euh, mu tudd Euh, an an an anonyme yi quoi nekk nekk transaction dafa anonyme léegi su nekkee yow pour nga def une quelconque transaction wala nga am benn hot wallet il faut nga il faut nga remplir un KYC en général nit ñi duñu nangu dem ci exchange yooyu noonu quoi léegi konaam euh, plateforme exchange yi nan lañu def pour mitiger aussi problème boobu quoi ñaari